yooyu alamru digle bi tawakkul yi ci wakkilu ci yàlla wala yaqiin ak yi dafay jàngale wakkilu ci ak wóolu yàlla wóolu yàlla mooy mu wóor ne lépp lu mu digee rek dana am waaye lépp lu mu tëkkoo dëgg la ku ko moytuwut tëkku ko dal sa kaw wakiilu nag mooy ki nga xam ne si nga sukkandiku mooy sa yaakaar ci yàlla rek lañ ko war a def waaye lu jafe la te doomu aadama yi yàlla daf leen woon jëf yi muy feeñee ci mbindeef yi moo tax ñu sukkandiku ci mbindeef yi ñii ci seen barabu liggéeyukaay yi lañ sukkandiku ñii ci doomu aadama yeneen yàlla booleeg dañu am yaakaar ci ñoom dañ sukkandiku ñii seeni pexey bopp ak seeni xalaati bopp dañ rafetlu lañ sukkandiku waaye ñu néew ñu sukkandiku ci yàlla ku sukkandiku ci yàlla mooy koo xam ne amul lenn lum jàpp lu daral xelam du mooy boromam subhanahu wa lépp lu ko yàlla joxit daf koy wóor ne lii yàlla mën naa xëy xëy nangu ko mën naa yàqu kon loolu du nekk wéeduwaayam yàllaay nekk wéeduwaayam doomu aadama nag lam sukkandiku dafay def lu rafet pour loolu sax place bi nga am nga xam ne moom rek nga yaay kaar dangay teel a xëy wàcc heure dégg nga liggéey ba nga rafetal ko doo ko sàgganee ngir xéwal ga mën a sax boo sukkandikoo ci yàlla nag daf ko da koy jaamu di def di bàyyi tere yi ndax mayam ci yow mën a sax xaala wax na laa yàlla taala kawe na wa tawakkal wakiilul maanaam dëgërlul wala sukkandikul alal xayi ci aji dund ji alladi ki nga xam ne laa yemutu du dee laa ji dafay wane ne bul sukkandiku ci mbindeef ndax mbindeef bis dana ñëw mu jugee fi moo xam alal la dana jeex nit la dana dee lu mu mën a doon dana ràpp dana fi jóge waaye yàlla moom mooy ki nga xam ne du dee ba mukk yàlla ne yàlla ne na nga ci waajooju koo xam ne du fi mos a jub te du mos a jeexal du néewle du wàññeeku na nga fexe ba nekk xaritu waajooju bis boo xaritoo moo xam nga lépp sootul furqaan la beneen laay wa alallaahi ci yàlla dafa tawakkalu na ngeen dëgërlu na ngeen ci yàlla in kuntum nem nekk ngeen muminin di way gëm bu dee gëm mbit na ngeen ko baaxee yàlla su ko da ngeen jug rek jéem ndax yàlla moo leen sant ngeen jéem waaye daf leen wóor ne bu yàlla dimbalewut du baax moo tax bàyyi ne na ngeen sabablu waaye bu leen wakkiilu ci sabablu yi sabablu mooy defal li lay may waaye bul wakkiilu ci loolu mu ne sabablu gi daal dafa mel ni këll yelwaanukaay bu taalibe taalibe bool bu mu yore di ci yelwaan ah ci lañ koy defal waaye yaakaarul bool bi ko ko defal ci bool bi la yaakaar yow li nga yëngatu loolu nga yaakaar da nga yàlla fekk si la defal la ci li nga bëgg loolu mooy wakkiilu ci yàlla du la tee nag def li nga war a def boo amee sa gërëm danga koy xeew fi nga ko war a xeew te wakkilu ci yàlla waaye bu neexee yàlla nga xeew ko bare mu sànku kon ba nga koy xeew waaye jàpp ne yàlla ko mën a sànk sàmm waaye doo jël gërëm gi bàyyi ko fa fa muy sànkoo te naan wakkilu naa ci yàlla loolu du wakkilu wakkilu mooy def li nga war a def ba pare bàyyi sa bopp nag <coughs> yàlla loolu ana lu lay yóbbee résultat bi mooy def dara du tax nga mooy ci yàlla def dara du tax nga teggi mukk yoon wi yàlla bu fekkee ci yàlla nga wakiilu lépp looy def rek danga koy def ni nga ko bëggee ndax xam nga ne li ngay def mayut la waaye musalul la kon nag doo mooy yàlla mi nga xam ne mooy maye mooy musale ngir loolu loolu mooy résultat wakiilu ku wakiilu ci yàlla dafay jëf ni ñëpp di jëfe di sabab lu ni ñëpp di sabab loo waaye nag du teggi tànk mukk fi yàlla bëgg ak fa mu joxe ndax xam na ne kii maye di xañe kenn rek la mooy borom bi subhanahu wa taala wa qaala wana taala yàlla wax laay ci yàlla fay tawakkil na wakkil gëm mu ne ñi gëm nañ wakkilu ci yàlla kooku Aali Imraan la wax na taala yàlla mu ko mi may tawakkal ku wakkilu ala laay ci yàlla foofu moom yàlla xasbuhu doy na ko beneen xadis yàlla ne ku wakkilu ci yàlla yëg ne yàlla doy na bis boo wakkiloo ci yàlla te mooy nga bàyyi ko sa mbir lépp looy def rekk moom nga ci yaakaar su danga da nga yëg ne yàlla doy na la da nga yëg doy gi yàlla doy ba doo soxlaati dara loolu mooy mooy tawakkal alallaahi fa hasbu ku ko weddi laaj ko Ibrahima alayhi salaam ba nga xamee dajee naag Namruud muy buur bu beew Namruud xoote ne mooy yàlla Ibrahima ne ko yàlla mi nga xam ne moo bind ñëpp kooku di yàlla yàlla mi nga xam ne mooy dundal di rey nam ru dem jël ñaar ñun tëjoon rey kenn ki bàyyi kenn ki na ma ne loolu ñëpp mën nañ ko dundal naa rey naa kii kon maa yàlla Ibrahima ne ko ah ne waaw ne ko yow na ab na mut la na waaye mooy dundal moom mooy créer nit ki dund lu amul woon yàllaa ko mën a amal dundal bu dee amee it yàlla ci ànd mu dee waaye Namruud ab dof la mu ne ko waa jant bi def penku lay fenkee sooxu lay xarfu lay soxee yàlla koy fenkal di ko soxal defal lu mel na Namruud taxaw xam na ne loolu moom mënu ko mu mere Ibrahima ne ko xañ naa la dund moo doon joxe dépasse ku mu joxut doo am mu ne bu kenn jox Ibrahima Ibrahima wéeru ci boromam bu defee gis na ne bu delloo këram te indiwut dara njaboot ga danañ jaaxle te nitu yàlla lu mu baax baax yërëm njabootam ndax yërëm njaboot ci mbaax la bokk bu defee mu jël ab saaku diw ci beeñ ba fees xëy na ko jëm ànd ak moom jëm kër ga dem rek bëcc ko sonn coono bi jàpp ko mu tëdd nelaw soxna si ne ma jël dugub ji sama sang bi indi defaral ci luñ lekk ndax bu xew xam lu mu lekk mu dem fekk dugub ji gën rafet ci biir saako te Ibrahima beñ la fa defoon kat suuf mu togg Ibrahima yeewu kat gi xañ ko mu laaj ko foo jëlee lii mu ne ko dugub ji nga jëlee sa xarit ga am na ñu ne foofu lañ ko tuddee xaritu yàlla gis nga kooku ni mu wakkiloo ci yàlla dooy doyloo yàlla mooy lu mën a xew yow lu yàlla wax ngay wax lim bañ nga bañ ko loolu mooy wakkilu ci yàlla loo ca mën a ñàkkit baax na yàlla mi tax nga ñàkk ko dana la remplacer lu ëpp lool waaye doo wax dëgg ndax lan ndax ragal nga ñu mere la ci ragal nga ñàkk ci nàngam ragal na ñoo ñaañu ci ragal nga nàngam yow wakiiloo ci yàlla yaa ngi fenn ndax bëgg nga ci dara bëgg nga ci intérêt wakiiloo ci yàlla ku wakiilu ci yàlla dafay doyloo yàlla te sant te def li ko yàlla sant mais du ko tee sabab du ko tee sabab daan naa la ko misaalel misaal mu jege na mu mën a diggante yàlla ak jàmbi noonu la mën a mel yàlla moom kenn mënu koo misaal waaye daal dama ne ahmad nga nele wóor ne lépp luy njariñ ci ahmad lay jóge waaye lépp luy lor ahmad moo la ko mën a teg ci nettale bu yàqu yàllaay jëriñe mooy lore dama lay joxe misaal rek ahmad nga nele luy jëriñ lu ne ahmad moo la ko mën a jox waaye lor wu nekk ci ahmad la mën a jóge daanu sa kaw waaye nga gis ne ahmad bu la bëggee lor le léegi tànk bi lay jël wéq la léeg-léeg mu xool la bëri xool bu njàng tax nga ragal tànk ba di ko raaye ka fomp boo ko gisee sëgg waaye xam noonu yaa ngi koy saaga yaa ngi koy mbej tànk ba da gën a weq boo boo moytu sa loxo bi bokkaale ci far wala boo nga gis ne Ahmed mu lay teral waaye bu lay teral làmmiñ bi la lay wax lu rafet loxo bi la lay joxe nga topp loxo bu ahmad ba diraaye ko fomp ko fóona ko màggal waaye boo gisee nopp ahmad ba ñoppati lex ba nga mbéj faale woo ahmad loxo ba loolu lay jox mën naa mujj dagg jox ga wala mu dal sa kaw loolu mooy di wut lu gërëm loo doomu aadama yi ngir dégg nga intérêt ba nga ci yaakaar wala boog ngay wut lu leen gërëm loo ngir ragal seen ab lor loolu mook di toppatoo cër tey mooy borom cër ba ñoo <coughs> yem waaye yow mi xam ne Ahmad mooy jëriñe mooy lore bu la weqee ca tànk ba doo faale tànk ba dangay ngay fexe gërëm loo Ahmad rek bu Ahmad gërëmee tànk ba lootu la mën a weqati ba laa yombi ndax dana ko téye <coughs> yow li la intéresse mooy li Ahmad bëgg loolu rek ngay nekk di def waaye tànk ba moom xam nga moom benn affaire doo ko ragal dire moo la wéq loxo bi lay joxit gërëm loolu ahmad rek loxo bi leen di jox leneen sax dana la joxaale waaye loxo bi doo ko yaakaar gis nga ñun ci suñ cër yi la ñuy defee mais kenn du yaakaar cër yi yow la ñuy yaakaar kenn ragalul cër yi yow la ñuy ragal yàlla it danay defee ci mbindeef yi waaye waroo yaakaar mbindeef yàlla nga war a yaakaar waroo ragal it mbindee fi yàlla nga war ragal loolu mooy wakkiilu dëgg soo ko defee nag te muy dëgg nga xam ne seen tootoo njariñ wala lor ci doomu aadama yi yàlla taxaw la jariñal la boppam fegal la lor boppam te bula bëggee jariñ bu ñëpp dajee woon mënuñ ci dara maa yaftaxillaahu linnaasi min rahmatin falaa mumsika laha mu ne bu ma la ubbilee yërmande kenn mënatu ko téye waaye wa maa yumsik falaa mursila lahu min baad nee lu ma téye kenn mënu la koo jox kooku moo jara wakiil sootu talaaq wakiilu mooy nga dë sukkandiku ci moom sukkandiku gi mooy da def li mu bëgg di bàyyi li tere moom dana la taxaw wa qaala wax na rasulullah yonent yàlla bi sa alayhi wa sallam dërëk mos yonent ne allahuma waa amantu gëm naa bi ka ci yow wa tawakkaltu wakiilu naa alayka ci yow mooy bàyyi naa la sama lépp ci yow laay dëgër gis nga kon wakiilu yonent ne lañ ko war a def yonent def yàlla jébbalu naa gëm naa la waaye wakiilu naa ci yow wa anabtu dellu naa ilayka jëm ci yow yonent ne ko yàlla ci yow laay dellu mooy yow laay topp yow laay topp li nga bëgg ma def li nga bañ ma ba ko waaye waxaasantu xuloo naa bi ko ci yow moo tax xuloo xuloo mënutee ñàkk waaye kan ngay xuloowal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kan ngay xuloowal lislaam maanaam wuutee naag ñi wuuteeg sa yoon ndax yow saa ma wuuteeg nit rek dëggal sa yoon la wala ma yow bi ko xaasamtu yonent nag waxaasamtu naa yàlla bi ci yow yow yaay tax may xuloo maanaam ku laal wala mu laal sa yonentu wala mu laal saw yoon ma wax bu dul loolu man aw ma ci defar aw ma ci yàq loolu moo doon yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi muslu bi izzatika ci teraanga laa ilaha amul benn buur illa anta lu ma yow maa ngi muslu an tudilla nii nga réeral ma yàlla maa ngi muslu di wéeru ci yow di la ñaan yàlla bul ma réeral di la yonent su doon nga xam laa yamuutu du dee wal jinnu jinne yi wal insu ak nit ñi yemutuuna dañ dañuy dee ñoom ñëpp yooyu yoroon su doon jàngale yàlla comme que yaay dund doo dee yaa jara wéedu nit ak jinne dañuy dee kuy dee nag jaruta wéedu te bu ñuy dund sax mënuñ dara lu leen yàlla mën loo wut ñooñu da ngay jëflante ak ñoom ngir rafetal parce que yàlla la sant nga rafetal jëmee ci def yëpp waaye jëflante ak ñoom ngir yaakaar dara ci ñoom wala ragal dara ci ñoom yaakaar ak ragal yàlla rek lañ koo rawaaw soo nag al buxaari bu muslim ak muslim wala du baat bi la fu ñel gis nga jinne yi tamit gis nga yonent ne dañuy dee am na yoo xam ne la ñuy mooy ami jinne yàlla moo gën am jinne nit da wuti yàlla waaye nit ñi di yàlla yow ngay wuti jinne la jombalee nag yaa ko sa bopp waaw wut yàlla ngay wuti jinne bu la jinne yi jombalee yaa ko def sa bopp waaw yàlla mooy jëriñu jinne jëriñu wut lor lor lor ya cay jaare sax moo ëpp njëriñ la far waaw sol nakal Buxaari wa Muslim wala su baat bi la fa alhamdu digle bi taqwa laay ci ragal yàlla bunt bi ci topp dafay digle ragal yàlla ragal yàlla mooy jëf ndigal yi bàyyi tere yi xaala woon allah yàlla taala kawe na wattaqullaha ragal leen yàlla waala mu xam leen anna laa na yàlla maal muttaqina ma nga ànd ak ko ragal ragal yàlla mooy li yàlla bëgg ngeen def lim ngeen ba loolu rek mooy ragal su ngeen ko defee nag yàlla ngi ànd ak yéen ku yàlla ànd ak kenn mun laa daane wa qaala woon allah àlla taala ka wene fattaqullaha ragal leen yàlla mastataatum seen kemtulaay kattan ragal leen yàlla li ngeen man te ku ragal leen yàlla ni mu leen neexee danga dégg nit ne man lii laa man fekk looloo ko neex waaye mën na lu ko ëpp ragal leen yàlla li ngeen mën mooy loolu la yàlla sant defee ko ni nga ko mënee daf laa sant nga julli mënoo taxaw normal weedul nga julli mënoo weedu toogal nga julli mënoo toog toogal weetu mënoo loolu tëddal li nga mën a jullee ngay jullee loolu mooy fattaqullaha mastataatu bu leen yàlla sante def leen ko comme lu ngeen ko mënee amaa lu ngeen mënut ba mënu leen ko ndax da ngeen cee lot wàcc na leen waaw waaye ragal yàlla ni nga ko mënee nga ah, man de li ma mën mooy julli suba gaye waaye tu subaar moom dëgg yàlla mënuma ko julli moom yow da ngaa ragal yàlla ni mu la neexee mais defoo ko ni nga ko mënee da ngay nar man ngaa julli tu subaar mais da koo defut ragal yàlla ni nga ko mënee nga ne ah, man de man mën naa commerce moom waaye foo mu trian moom ba bu bëri parce que trian moom mënuma koo ba moom mais nag du ma du ma du ma doomu aadama yi du ma dóor du def nangam mais trian gi moom mënuma koo ba waaye du ma naan sàngar du ma nangam yow da nga ragal yàlla ni mu la neexee mais ragaloo yàlla li nga mën ndax mën ngaa bàyyi trian waxoo dëkk ku mënul bàyyi lu bon amut waaye ragal yàlla ni nga ko mënee mooy loo mënul wàcc na la loolu lottu maanaam sootu taxawu wa qaala wana taala yàlla mu ko leen yàlla waala mu xam leen annakum ne yéen toxsaruna dañ leen pang ilay jëm si moom ah du wax kese wax ju raglu la ragal leen yàlla mooy def leen leen digal bàyyi leen lim leen tere ne leen wóor ne bis dina ñëw yéen ñëpp ngeen dee dajeeg seen borom doomu aadama bu xoolee boppam xoolaat boppam xoolaat boppam jàngataat boppam dafay xam ne nekkut su fekkee nit la laa wax bu nitewul rek mooy xool boppam yëg ne mooy diw mooy nàngam toll na fii mais doomu aadama bu nite dafay laaj ci moom mooy kan lan la doon ndax bu xoolee du gis dara ci boppam lu mooy yàpp ak yax ak bopp nopp bët te ñëpp loolu rek la am mu wóor ko ne bis ñëwoon na nekkul woon dara luñ mën a tudd mu wóor ko ne bis dana ñëw mu effacé wu ñu dugal ko ci biir suuf mu wét fa ak yàlla rek doomu boobu li ko war mooy mu teel a wéeru ci yàlla moom ndax yàgg-yàgg ci moom ngay dellu yàgg-yàgg daañu gas ba mu xóot ñu suul la te la la fay jariñ mooy lii la yàlla bëggoon nga def ko lii la yàlla bañoon nga bàyyi ko lu dul loolu du la jariñ kon ba ngay dund del xool yàlla bëgg ngay def lim bañ nga di ko ba loolu mooy ragal yàlla ndax bis dana ñëw da nga delluwaat ci moom képp kuy dund si ñun boo ko xalaatul tamit noonu rek lay demee bis dana ñëw nga effacé wu xalaatal bis bi ngay effacé wu di ñàkk bis bi ngay dee ñu ngi la suul si suuf bis bi nga xamee ne sa dëkkuwaay lu mu rafetoon rafet ci biir suuf si rek ngay mujjee bis boobu nga xam ne sa jëf rek ñoo lay fekk ci bàmmeel bu dee lu baax yàlla fay la xiw bu dee lu bon musiba daanu sa kaw bis boobu kenn ku nekk suñu war na di ko xalaat moo tax yàlla tëkkali ragal yàlla ne ragal leen yàlla ah bisa nga ñëw ngeen dellu ci yàlla de mënu ñàkk dee mënu ñàkk bàyyi na wax ne ku yaakaar ne du dee ku dof ba yaakaar ne du dee laaj ko ana baayam bu dee baayam a ngi laaj ko sa baay moom ana baayam booy laaj balaa yàgg mooy ne dee na deegu ñëw nag ba sës sa maam yóbbu ko sës sa baay yóbbu ko xam nga ne deegu du la ba ñun ñëpp danañ danañ fi jóge kon su boobaa weddul ci yàlla moom nga xam ne boo dee ci moom nga jëm wa qaala wana taala yàlla mu kam yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa ñi yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla wa quulu wax leen qawlan wax sadiidan di jub yàlla ne na ngeen ko ragal te su wax na wax lu jub mooy ne yàlla bëgg ngeen wax ko lim bañ ngeen tere ko لولاي واخ جوب يصلح دنا ديفار لكم نيال الاعمالكم سن جفي سو نين ديفه لول سن لب باخ لو نين لال مباركه كون بوك نتي رغال يالا دي واخ لو باخ دي ديغي لو باخ دي تيري لو بون تا كوغي داف يالا ديفار سمبير وقال وانا تعالى يلومكم ومن يتق الله كرغال يالا yajal dana def lahu ñeel ko maxrajan génn waay wa yarzuqhu dana ko wërsëgal min xaysu laa yaxtasibu fu mu foogul woon ne dana fa am wërsëg yàlla nee na boo nekkee ci xat-xat ngel bu mu tax nga mooy ko ñàkk bu mu tax nga ñànk wolof nee na bu rëbi rëbi dégg nga mar naan comme taxa naan fóotit bu rëbi na nga rus waaye jafe-jafe bu la taxee mooy yàlla ci gàcce ngay dëkk lu metti métti yàlla nee na ragal ko mu génnee la ci xat-xat bi nga nekkee ak lu mu dansé dansé boo ko ragalee mu génnee la ci xat-xat boobu nee na jox la wërsëg woo xam ne foogu woon sax ne da ko am kon boo bëggee wërsëg bu yaatu boo yaakaaru tuum am yoon bi mooy def ndigal yi bàyyi tere yàllaa ko waxta lu mu digg dëgg la boo nekkee si jafe-jafe bëgg caa génn yoon woowu mooy ragal yàlla def ndigal yi bàyyi tere yi loolu rek mooy ragal yàlla wa qaala wa taala yàlla mu koy wa zaru bàyyi leen zahiral ismi bakkaar yu feeñ yi wa baatinawu ak yu nëbb yi bakkaar yu feeñ yi ak yu nëbb yi yépp na ngeen ko ba loolu la wax loolu mooy ragal yàlla tere yi nga bàyyi ko yu feeñ dàng yi ak yu nëbb nga bàyyi soo ko defee ragal nga yàlla wa qaala wa mu koy in tattaqu bu ngeen ragalee allah yéjal dana def la lakum ñeel leen furqaanan leer ak gëm yàlla wala leer ak maarifatu kon gannaaw ragal yàlla am na may gu ñu sàkku mooy xam yàlla gi yàlla def sa xol yàlla ne bu ngeen ragalee yàlla mu defal leen furqaan furqaan leer la gu nekk sa xol buy tax nga xàmmee baatil ak xaq loolu mooy caaxaan la mooy dëgg ragal yàlla dafay maye leer googu wayu kafir dana faar an kum ci yéen sayiaatikum seen ñaawteef bu ngeen ragalee yàlla seen bakkaar yàlla faar wa yaxfir mu jéggal ñeneen lakkum ngir yéen gis nga Cheikh Tidiane wa yaxfir lakkum gi firiwul yàlla jéggale li muy firi mooy yàlla baal ay nit sax ngir soo ragalee yàlla yàlla baal la moom wax na ko ci wa yukaffir ankum ko boo ragalee yàlla yàlla defal la leeru gëm yàlla baal la sa bakkaar waaye mën naa baal sa doom ndax yow mën naa baal sa xarit ndax yow mën naa baal sax ku defal lu baax ndax yow ragal yàlla mën naa tax yàlla sofe ay nit yu bëri yu naroon alku waaye ndax yow yow yow na leen rusé loolu am na wa yaxfir lakum mm-hmm. mu baal leen gis nañ ci alquran ay nit yoo xam ne nii bàyyi ju baax rek lañ amoon bàyyi ju baax musiba naa la daal seen kaw yàlla yebal xadar mu dimbali leen fu ko teg mu ne wa kaana abuhuma saalihan parce que seen bàyyi dafa baaxoon moo tax yàlla bëggul ñu àl jëfi bàyyi ja walla waaye du ñoom de mais bàyyi ju bax dina walla dom rawatina bu dom ji gor gor lo ci kem kéemtulaay kattanam kon bo ragale yalla yow mën ngaa mucc waaye mucc laale ñeneen loolu mooy wax fi dana jegal ñeneen la kum ngir yeen motax tax jógee su ragal yalla bax bok bokk su ñuy ragal yàlla baax na ndax tax yalla baax la ndax ñoom wallahu yalla sul fadli borom ngëneel la al azim bi aji ko am ngëneel la ku am ngëneel mooy man na laa baal ba baalaale sa njaboot man na laa baal ba baalaale say xarit man na laa baal ba baalaale ku la mos a jox lekk wala ku la mos a ñaanal yàlla wala ku la mos a defal leen lu baax bàyyi na mu rëy dana fa yàlla dana dana xoo nit ne ko mos ngaa xam mos ngaa eh, jëflanteeg diw mu ne déedéet moom dara ci lu baax mu ne déedéet mosuma ko defal dara ñoo bokk jamono daan naa dégg turam nu rek laa ci am naa ko baal naa la ngir diw moom nga doon dégg turam loolu am na yàlla yàlla waaj ne ko baal naa la parce que yàlla doon dégg turu diw hmm? yàlla ku baal la ku bëri nga dana baal nit ëllëg dara taxul mu baal ko de lu mooy daan dégg turu benn waliyu yàlla baal ko ngir loolu waaye nag di def lu baax moo gën a wër mais yàlla mbaaxam lu yaatu léegi nag wali boo xam ne dégg turam rek mën naa tax yàlla baal loo xam ci yow mi nga xam ni sa dund yëpp moo doon xas ko ak noonoo ko ŋàññi ko dund naa métti ci yow wa qaala wa taala yàlla ma ko wa taqu ragal leen yow man bis bi nga xam ne loolu bàyyi wax nag laaya jàng ni wa yaxfir lakum mu jéggal ñeneen ngir yéen laaya jàng tax taqu ragal leen yow man bis boo xam ne tur jamono dañ leen delloo fii ci moom ila laaya jëm ci yàlla ragal leen bis bi ngeen dee bis ba ñaari malaaka yi di wàcc dog bànneex àdduna gi nga nekkee woon taqali ak sa njaboot ak sa alal ak i doom génnee la sa kër nga war a dajeeg sa borom dëkk ci suuf nag gannaaw bu nga dëkkee ci kaw suuf léegi ci biir suuf ngay dëkk mënoo ci dara malaaka yi ñëw te mënoo ci dara sa jëf nga war a dajeeg moom bu baaxee muy tiyaaba ak xewal gu dul jeex bu bonee muy rëccu ak bëgg dellu ci àdduna te dootu delloo ci ba mukk yàlla nee na ragal leen bis boobu nu ngeen koy ragalee mooy ngeen def lu baax bàyyi lu bon yàlla xam na seen kon bu leen wan nit ñi ne ci lu baax ngeen nekk fekk seen biir xol xam ngeen nekku leen ci lu baax bàyyi leen xel yàlla mooy jëriñu mooy lore wattaqu ragal leen yomoon bis moo xam ne tur yomoon da ngeen dellu fii ci moom laa jëm ci yàlla su ma tuwaffaa topp matal kullu nafsin bépp bakkan maa bakkan maa kasabat lam faggu waxum ñoom laa yus la moon duñ bakkan bu nekk yàlla nee la nga def dinaa la ko fay ba ma sëkk du ma tooñ kenn ci àddina mën ngaa def lu parce que xam nga ne kilifa gi mën naa dal sa kaw mën na laa lor waaye gisul la noo tax nga ñëwee def lu bon wala xam nga ne yow kilifa gaa ngi lay gis wala boog nit ñaa lay gis yaa ngi def lu bon waaye mënuluñ la dara moo tax ngay def lu bon wala boog wóor na ne kilifa gi lay gis mënal na la dara sax waaye moom dafay parparloo ju jugut xam nga ne yaa ngi moom a ànd du la tëj du la dara ngay def lu bon amaa yàlla loo mën def mu ngi lay gis mënoo ko nëbbatu yàlla am na kattan pour mbugal la te moom commande la loo def la lay fay su boobaa lu baax rek moo moo fa jig nit ci yàlla def lu baax moo fa jig nit moom du tooñ kenn nga def lu baax mu fay lu bon du ko def ونقول في القرآن ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم دقل أينا في خدين ويبغين قمي يالا لولين يالا لو يالا دوين بغل من من لن لا دوين بغل جام بو خمني مو مي سنت ديف لو باخ دي باير بو لولين يالا وخ ني من كوي ديف لو باخ دو مولم بغل باسك دوين ما دارم بغل كو يالا بغل كو ني دا موي وقال وانا رسول الله انت عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام دلك مسل في حجه الوداع تي اجك تاغ توغ مو اج جيغا خمني balaa déwénte di ñëwaat yonent bi génn àdduna ne ittaqullah ragal leen yàlla wasallu julli leen xamsakum julli juróomi subatu suba takusaan timis gaye wa suumu xoor leen saxrakum seen weer muy weeru koor waddu joxe leen zakata amwaalikum alal azakaay seeni alal maanaam alal ji ngeen am na ngeen génne azaka wa atiyon topp leen umaraakum seeni buur mooy njiit yi leen yàlla jox na leen topp ñun nag ñi ci jamono yoo xam ni ku yàlla jiital ñu soxore la xam nga Sénégal moo gën a naqari nekk njiit Sénégal bu la yàlla tegee ci kanam ku bëri noonu ngay doon rawatina nag place bi nga nekk nit ñi bëgg faa toog da ngay waaye wax dëgg yàlla aw mbooloo bu dee dañoo sekk réew wala ñu sekk dara ñu ne ñoom ñëpp réew maa leen intéresse que yàlla jiital ñëpp war a ànd jàppale ko dimbale ko di wax luy defar ak lu koy yokk ba waxtu jot ku nekk laaj mais lu ngeen xam ci réew moo xam ne ni ku yàlla jiital ñaanu ak yow moom la ñuy njëkk a commencé mooy say ayib rek la ñuy xool di wax. ak nu ñu la fakkastalee galgal la ba nit ñi bañ la. ak nu ñu la daanee ba doo liggéey sax lu baax mais ñooñu réew mi ñoru leen mbooloo bu ngeen àndee pour defar yàlla jiital na diw yéen ñëpp nekk leen ci gën am jàppale ko. njumteen ngeen wax ko ko waaye lu baaxam ngeen waxal ko ko. su juumee ngeen tegaat ko ci yoon di ko laaye biir di ko wan fan la war a teg tànkam mën nañoo nekk benn bu bu waxtu jotee ku nekk laaj waaye wute na ak yow solo bon rek laay wax yonent nee na déedéet na ngeen topp seeni njiit yàlla mooy fal ku ko neex ku yàlla fal nangul leen ko booba yàlla di ko wàccee bu ngeen ko bëggee wàcce ngeen wàcce ko ci carte bu leen ko wàccee ci doole su ngeen defee loolu tadxulu da ngeen dugg jëna tarabbikum aljanaay seen i borom rawahu وقال وانا صلى الله عليه وسلم ان الدنيا انك ادنى حلوه اجي نيه لا تي لامن قدره اجي نتخ لا موي دافار فات تي بت يونت نينا ادنا يالا نكو داف نيت ني بوج كو مو نيه واي بت بو كو خول بوج كو ادنا لون لا مل واي وان لا نك يالا مستخلفكم مو لين ووتلن فيا تي ادنا يالا داف لا نين ووتو كو تي ادنا فين زور مو خول كيف تعملون نك نين داف نخ بوج ادنا داي تخ نين موي كو فتقوا الدنيا رجل الادنى ni saa ragal leen jigéen fa inna awala fitnati bani israila naka fitna bu njëkk ci fitnaay banu israila kaana nekk na fi nisaa yi ci jigéen lii la yonent wax nee na yàlla moo jël àdduna def ko mu neex ci xol xol yëpp bëgg ko neex ci làmmañ boo amee àdduna am nga sa kër bu rafet am oto am naa nga dafay dund bu neex ngay dund yàlla nee maa def àdduna mu mel noonu ba pare ma def bët yëpp bëgg ko boo amee àdduna sax ñëpp lay xool mu ne nag ma wàccee leen fii aaye leen dara digal leen dara léeg-léeg ma aaye leen loo xam ne daf leen xañ àdduna léeg-léeg ma digal leen loo xam ne dëpp wute wute na ak bànneex àdduna yi ngir xool lan ngeen def ndax bëgg àdduna dafay tax ngeen moo yàlla ndax ragal ñàkk àdduna dafay tax ngeen wuteeg santaane yàlla loolu la yàlla di xool nan la def kon yow àddina am ko ñàkk ko na la xemale xoolal yàlla bëgg nga def lu mu bañ nga ba ndax àddina dafay jeex mu ne ragal leen àddina maanaam moytu leen ko yàlla mi ko bind xam ko moo ne moytu leen ko ndax dafa mën a nax nit waaye ragal leen jigéen lan mooy ragal leen jigéen mooy moytu leen fitnaay jigéen ndax kum mooy tuut jigéen suufe bëri na ay nit yoo xam ne ni yàlla dimbale woon na leen ñaaw ci yoon wu baax ba ñëpp leen joxañ waaye la leen wàcce bañ suufee jigéen rek la moytu leen jigéen fitna bu njëkk ci fitna bi daloon banu israila ci jigéen la jóge loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax banu li doon xeex yonent yàlla Moussa ñu dem ci balaam ibnu baamura wëlli yàlla loon waaye nag doon wëlli boo boo noonoon ci yàlla yàlla rek la doonoon ku la neex waaye ci yàlla rek yàlla rek koy ñaanal lu bon histoire bi yàgg nañ koo nettali yàlla bu génne làmmañ mu mel ni xaj mu xalag ko génne xam-xamam léegi mbaax dootu ko jëriñoo ci dara mooy leen ah, li xew xew na léegi daal li ngeen ma def mooy bàyyi leen jigéen ñi rek ñu simmeeku bu ñu demee ci xare ba na jigéen ñu simmeeku waa Banu Israayil ñoo fi gën a bëgg jigéen jigéen juñ sàkku rek na nangu ñu defee yàlla xaral leen xare ba jot rek jigéen ñi simmeeku Banu Israayil bàyyi fa Moussa nekk si jigéen ñi ñoom xoolal ci loolu yàlla jox leen feebaru mbas ñu bari ci ñoom dee loolu mooy fitna bu dee njëkk alak kon xeet bi bu ñu demee ba yombal njaaloo ah nekk ci jigéen ñi. te loolu sax ko am kersa du ko def nit ko am kersa dina rus di mooy yàlla fekk nit a koy gis ñàkk xorma dëgg ak ñàkk kersa dëgg mooy yóbbee nit mu mën a mooy yàlla te nawaleem di ko gis rawatina nag ci mooy yàlla ci jigéen hmm? ko am kersa ku ne war na koo moytu waxuma sax jullit waaye hind jabaru abu sufyaan ba muy dugg ci lislaam yonent ne ko saab saab bu leen njaalo def na ko ndax góor na njaalo wallaay wax na dëgg góor du njaalo parce que dafa ñaaw dafa salti nekk ak sa nawle mën a sikk ak moom loolu mu di la xool nga di ko xool mu génn di la xool nga di ko xool nga xam ne yaa doon def lii loolu góor gu nekk war na ko rus yonent ne moytu leen jigéen waaye moytu leen tamit xalaatu jigéen yóbbaale leen waaw ñu ngeen war a moytoo njaaloo ak jigéen ñi séq ak jigéen ñi lu bon wéet ak jigéen ñi ndax dafay xalak nit mboolem xale boo gis mu topp xalem nekk ci jigéen ñi feeñ na ci jamono magam balaa muy xam dara xaw naa dee ndax bakkaar bi daf koy topp waaw te njaaloo yonentu wax na si juróom benn jikko ñett yi ci àddina yeneen ñett yi ci àllaaxira yonentu nee na njaalookat du am leeru gëm yàlla am na ñoo ne boo xool da nga leen bëgg parce que daf lay am nañ leer mais njaalookat kanam gi du leer mën naa xeesal de ba xees waaye nag boo xoolee da koy seexu kenn du ko xool rek ba bëgg ko dafa am ñoo xam ne dafa am gu leen gu lay xëcc boo leen xoolee rek xam ñii seen kanam yàlla def na ci leer yàlla kat du am loolu yonent ne ne njaalo kat day ñàkk mën naa liggéey ba dee waaye du am dara moo tax xale bu bëgg am dara da moytu jigéen jigéen ñi ko doon topp ci ñàkk nga jëm yàlla kat day gaaw a dee gàtt fan su tuubut nag lañu wax allah xelaa yàlla daf koy mere réglé ko réglé bu métti tribunal boo fa demoon ñu lay àtte rek da nga xaw a bëgg a wax ma ne yàlla taxawal la bis penc di la réglé réglé bu métti ba pare dugal ko safar lii moo nekk ci yàlla baaxut waaye moytu leen tamit topp xelaatu jigéen bu matut laa wax waxuma nga bàyyi xelaatu jigéen ñëpp jigéen ñi am na ñoo xam ne seen xalaat xalaat bu rafet la ñooñu jar nañoo topp waaye ñoo xam ne seen xalaat seen bànneex bakkan rek lañ ko teg bu leen leen déglu bu leen ko moytu dama yàqule jigéen bu baax comme xadijatu jar naa déglu xalaatam yonentu sallallahu alayhi wasallam bu jaaxle waan xadijatu moo ko daan wax defal la mais daf di jigéen ju baax bàyyi nettal nañu nit koo xam ne dafa ñàkk dem ci yonentu jamono ne ko ñaanal ma yàlla mooy ma alal yonentu ne ko yàlla nee na sa genn wàllu dund da ngay am alal sa genn wàllu dund da ngay ñàkk xoolal boo ci njëkkee mu ne ma laaj sama jabar parce que jabaram ku baax la mu ne jabar ne ko na alal ji ñëw léegi rek man bu doon man ko ma tuumaal ko parce que maanaam yow bëgg xaalis moo la jàpp ngay na alal ji ñëw léegi mu ne ko ah, am ba pare mujjee ñàkk loolu metti na de ko wax ko rek ji ñëw léegi rek mu dégg ndigal dam na ko waa ñaanal ñaar alal ji ñëw mu ñaanal ko waa ji am alal jabar ji ne ko nag léegi lépp loo def defal ko miskin boo jëndee kër jëndal kër gu mel noonu jox ko miskin boo lekkee toggal lekk bu mel noonu nga jox ko miskin boo jëndee yére jëndal yére bu mel noonu nga jox ko miskin mu topp ndigalu jabar ba dundam di xaaj ñàkkut yonent bi ne ko yàlla daf laa jox alal nga sant ko sa genn waalo dund nga waroon am waaye léegi su dund yëpp dangay am ndax sant gi nga sant yàlla la in shakartum la azidannakum bunt boobu lañ war a jàng sax kooku lu ko yóbbee loolu xalaatu jabaram kon du xalaatu jigéen ñëpp lañu war a sànni waaye xalaatu jigéen ju mel nii laa la wax ne moom nga war a sànni mooy lan mooy jigéen ji nga xam ne moom waaye jëkkëram dafa dem ci yonentu jamono na ko ñaanal ma yàlla mu ne ko yàlla may na la ñetti mbir yoo xam ne loo ci ñaan mu nangu xam moo naaw yàlla yàlla may nangam yàlla jox ko ko moo waxaat yàlla ma yàlla may nangam mu jox ko ko yàlla ma yàlla mu jox ko waaye mu ne ma laaj sama jabar te jabar ji jubut mu ñëw ci jabar ne ko ne na ñetti ñaan la yàlla may bu ma ci ñaan mu nam mu ne ko xay koy ñaanal ma dàq ci ci jigéeni àddina bi mu ne yàlla yàlla sama jabar dàq ci jigéeni àddina bi jabar ji rafet ba dàq ñëpp biñ ñëw jabar ji seetu xool boppam xool jëkkër ji mu ne ko yow daal mérité woom takk bagage bi foo jëm damay seeti buur bu ma mér too ma seeg moom waaye li nga ñaawee nii ak man li ma rafetee mënu ma laa seeg mu dugal tànk dugal loxo jabar ji ko mukk damay tas xol bi jeex fekk des na ñaari ñaar mu ne ko yàlla na yàlla def golo jabar ji nekk golo xam nga xam nga ñaari ñaan dem na ñaar njaboot gi di jooy seen yaay nekk na golo nangam nangam ñu ne ko lu def ñu ne ah xanaa nga ñaanal ko yàlla mu mel na meloon mu ne ko yàlla nga mel noo meloon jabar mel na meloon ñetti ñaan yëpp dem na ci zéro xam nga la mooy ñetti ñaani yàlla na sama jabar dàq ci àddina bi yàlla na sama jabar nekk goro yaa na sama jabar mel na mel ñetti ñaan yu perte ci topp xalaatu jigéen ju bon kon bu ñuy wax moytu leen xalaatu jigéen mooy jigéen joo xam ne matut koo xam ne ragalul yàlla gis leen ci moom ragal yàlla waaye jigéen ju ragal yàlla ju jub moom xalaatam jar naa topp hada in uridu islam wa tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu